bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo leen di nuyu na mu gën a rafete te gën ne selle te gën ne matale diggante jullit ak moroomam jullitam ñuy yëkkati sunu kàddu nag ci kilifa jataay bi di Serigne Ousmane Mbacké ñu di leen jot lii ay nuyoom ay cantam ak i soññeem mi ngi rafet lu jataay bii lool di jataayu lislaam kese nee na mi ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi ci yitte woo gi lu baax te di ko jëfe waxtu wu nekk te bis bii firndeel na ko ndax ba ngeen ko dalee taxawal ba nëgëni kanam rekk lay jëm waaye mut sa del ginnaaw te bis bi dara dara ëpp ko solo ci lislaam ndax mooy fàttaliku sunu bokk yi ñu fi nekk ndooloon te ñu wuy ji seen boroom te lii ñu leen di defal tey jii moom rek lañu ñu gën a soxla fa ñu tëdd tey ginnaaw loolu bokk yi kàddu soññe yi nag day gàtt lool ndax waxtu xat wi ba tax na dañuy jukki lenn rekk ci li nga xam ne fas yéene woon nañ koo waxtaane ndax lépp xaju fi li ñuy jukki nag jàpp nañ ne dara ëpp ko solo muy waxtaane ak taalibe ndax kat bokk yi ñu baree bari dañuy juum ci lan mooy ak taalibe te mooy li nga xam ne moo ñuy lëkkale ak sëriñ bi ba ñu mën a am sunu bëgg ci moom ba nu mën a am ngërëmal yàlla li tax ñu di ko waxtaane nag mooy ñenn ci bokki taalibe yi ñu ci bari dañoo jàpp ne ku jébbulu rekk sa àjjana leer na loola neex def naan sëriñ tubaa mën na lépp ñenn ci bokk taalibe yi xamuñu luy sababus war a wutub sëriñ ba tax na aada lañ ko def jàpp ne mbir mi sukk raam su jot rekk la ak jaayum joŋe ñenn ci suñ bokki taalibe yi jàpp ne ku dut seenub sëriñ rekk doo dara kilifa diine gu ñu mën a teg ci deram lu ñaaw te lii xew ci jamono ji wane na ko ñenn ci bokki taalibe yi di topp ab sëriñ ngir yitte àdduna kese maanaam sëriñ bi dafa am alal walla dafa siiw walla nit yi yi déggal nañ ko walla mën na ci waa nguur gi dara ñenn ci bokki taalibe yi topp sëriñ bi waaye du ñu jëfe mukk lu dul ndigal li dëppook seen bàkkan ndigal loo xam ne sëriñ bi digle na ko te neexu leen ñu wutal ko aw déggin ngir dëppale kook seenu bëgg ñu ci bari ci bokki taalibe yi yàlla yitteelu leen foo leen fekk adduna ak alali àdduna la ñuy sàkku ba noppi naan ëllëg moom nañ ko bàyyee sëriñ bi lu néew ngay gis ab taalibe buy ñaanloo ab sëriñam ngërëmal yàlla wala ak njub walla mucc ci seytaane moo ne sëriñ bu mat sëriñ de lii rekk moo ko yitteel waaye ñi ci ëpp ci suñ bokki taalibe yi li ñuy wax mooy sëriñ bi ñaanal nu wërsëg bu yaatu bu nuy man ba nuy mën a joxe addiya bu baax a baax mel ne kuy jalug sëriñ bi yaakaar ne sëriñ bi hadiya rekk ko yitteel ñenn ci bokki taalibe yi di diingat seenub sëriñ sëriñ bi waru woon a def lii waru woon a wax laa léeg-léeg ñu meroog moom léeg-léeg ñu juboo ñenn ci bokki taalibe yi doye dal sharia lool li yàlla digle ak lim tere ñu woyofal ko sàggane julli sàggane koor ak yu mel ne ñoom ci jàmm yi am na ci ñoo xam ne bu ñu jébbuloo ci sëriñ bi bu leen sëriñ bi di soññ ci jaamu yàlla ci lu mel ni ay julleeg yooyu dañ koy daldi woon ginnaaw dem jébbulu ji ci beneen sëriñ sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu wax na benn bés ne ku fi gis foo xam ne mën na faa amee aljana te du jaamu yàlla na fa dem ndax fii fi man amu fi ñenn ci bokki taalibe yi nekk saa su ne ci li leen seen diine tere jàpp ne dara du leen ca fekk sëriñ Touba radiallahu taala anhu mas naa wax ay taalibe yu ko siyaari si woon ne leen baa du ngeen yàq sama der ñu ne ko mbàkke lu yàq sa der mu ne mooy fu ngeen dem di ma wuyyoo te duñ leen seen mukk ca la neex yàlla ñenn ci bokk taalibe yi ku ñu bokkalub ab sëriñ jàppe comme noonu di jaxase sëriñ si di féewale taalibe yi bokki taalibe yi nanu xoolaat suñu bopp seetantalaat suñu doxee seetantalaat bu baax suñu digganteeg sëriñ bi te xam ne danoo doon ay jaami yàlla njëkk di ay jullit te dara indi wunu fi lu dul nu ko nu jaamu suñu borom subhanahu wa taala moom yi kon sunu dara wurta juyoog sharia nu jox suñu bopp sëriñ Tuubaa war a doon ay taalibe yuy sàkku ngërëmal yàlla kon nu war di jëfe ndigalam di moytu ay tereem te sëriñ Tuubaa daran génnut alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ku ciy def leneen nag sa mbiri bopp la waaye du lu sëriñ bi digle kenn mësta gis nag ku bëgg ku ko yóbbaale ba noppi muy ber yoonu boppam bokk yi sëriñ bi muy sëriñ Tuubaa wàcc na noo ci des ndax lim nu digal mi ngi ne fàng ci téere yi mu bind bàyyi lim nu tere mu ngi ne fàng ci téeréem yi mu bind bàyyi fi kon buñ ko duural di boole ci yoon wi lu ci bokkul buñ yàqub deram di ko wuyoo te duñ jëfe mukk ndigalam moom sëriñ bi moo nu wax ne fa kullu ma qaddamahu l insaanu fa bil jaza yajiihu dayyaanu lépp loo xam ne nit ki def na ko fii ci àdduna muy lu rafet wala lu ñaaw bu ëllëgee yowmal qiyaam dina dajeeg pay gu dëppoog jëfam jooja muy alxuraan ju wér fa man yaamal mitqaala darratin xayran yara wa man yaamal mitqaala darratin charran yara moo tax moom sëriñ bi mu wax nu ne wasaytukum yaa man taallaqoo biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharrama wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulla mustabih dénk naa leen yéen aju ci man topp ma te yàlla rekk ngeen bàyyi lépp lu xaraam walla lu ñu sib wala lu lënt bu fekkee nekkoon ngeen jëkk bu leen leen jege fenn bu fekkee mos leen cee nekk ci lenn yow mi nekk ci yii nag nan ngay mën a wuyoo sëriñ bi te sëriñ bi ci boppam tere la ko xalaatal ci say mbir bu baax a baax moom sëriñ bi mu wax nu ne wa lazimu alwaajiba walmanduuba wa maa ubiha taxtawu taqriba dénk naa leen yéen ñi aju ci man te topp ma te yàlla rekk tax ngeen di def li war ci yéen te sax ci di def li nga xam ne sopp nañu ku ko def ci suñ diine ji di def li nga xam ne suñ diine daganal na ko nu dégg ci ne mu ngi nuy moytuloo lépp loo xam ne daganul ci suñ biir diine ji segam danoo matadi nag bëgg àgg ci yàlla te xamuñu yoon wi bëgg ngërëmam te ump leen nun koy amee ba tax nu jël suñ bopp jébbal sëriñ bi yéenuwul maanaa kon ñuy nekk ci li ñu neex dara wërta nekk suñu yitte lu dul yàlla idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada sëriñ bi nee na murid bi wërta bëgg dara lu dul ngërëmal yàlla kon ci wax ji rek kenn ku ne ci nun war naa mën a natt boppam ba xam war naa wuyoo muridullahi wala déet sëriñ bi neen kon yow mi nga xam ne bëgg ngaa nekk murid saadiq ba sañ koo wuyoo kaay ma wax la ni ngay melawoo sifaatu saadiqi lmuridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar alsidqu fi mahabati lcheikhi abad tumma imtithaalu amrihi xaytu warad wa tarku al-i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw wa maahu salabu al-ixtiyaari li xusni dannihi bila inkaari bi ci njëkk ci melokaan yooyu mooy nga bëgg sab sëriñ bëgg gu dëggu ba mu gënal la ku ne gënal la lu ne waaye nag bu mu tax nga doye dal sëriñub jàmbur saa bu la digalee nga def fa saasa doo am dara dooy sikk ci li muy wax wala li muy def doonte ci sam xel sax te doo am looy taamoo def wala nooy taamoo doxale lu dul lim la defloo ak fi mu la jaarale sëriñ bi nenu kon gannaaw loolu te addaboo fi alanin wa sirri ma al ali wa xalqihi bil birri nanu takkaayoo ay teggin yu mat sëkk sunu digganteeg sunu borom ak sunu digganteeg sunuy moroomi jaam fu nu mën a ne moo xam nu wéet moo xam nu nekk ci mbooloo li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinaani nee na li tax ay teggin munta ñàkk murit bi takkaayoo ko mooy ne ay teggin rek ci la mën a àgge ci yàlla ay teggin rek ci lay dugge aljana fa kullu man bi gayrihi araama al wusul li xadrati llahi fa xumrun la mu nekkoon képp koo xam ne yaa ngi sàkko àgg ca yàlla ci lu dul ay teggin boo jàppee ne ku yewu nga yaa ngi nax sa bopp booleel sa bopp ci dof yi ab murit daa war di fàttali boromam fu mu toll di ko bàyyi xel ci ay jëfam ak ay waxam di sàmmonteeg ay ndigalam ak ay tereem ci lu mën a nekk di xeeñtu ak bëggam fa yéene cee sax te bañ a naw jenn jëf bal aktiril amala lillahi l ahad miqdaara faqrika li awnihi abad sëriñ bi nee na ni nga xamee ne noo nii ngay aajo woon ndimbalal yàlla na nga ni bari lee say jëf yu baax mu ne dafa war moom murit bi di moytu tamit merum suñ borom subhaanahu wa taala kemt lay kàttanam moo tax sëriñ bi ne wa man li naari llahi qadra sabrika ala istidaadi lxarri an law tuslaka ni nga ñàkk a mën a muñe tàngooru sawara buñ la ca tàbbaloon nanga di wattandikoo defub sofaan sëriñ bi nee na bokk na ci teggin yi murit bi war a takkaayoo digganteem ak moroomi jaamam wa kullu man sama alayka tukrimuhu wa kullu man sabura anka tarhamuhu wa jaalu mitlika ka nafsika tawa wa gayru di mimma istiqaamatan hawa képp ku ko féeteeg mag mu wekk ko teral ko képp ku ko féete ndaw mu ñeewante ko yërëm ko képp kuy moroomam mu def ko ne boppam yéene ko li mu yéene boppam nee na murit bi daa war a fa war daa war woyofal boppam bu mu jàpp mukk ne moo gën kenn bu mu gis xàq ci kaw kenn bu mu xeeb kenn donte kooka ku xeebu la bu mu jàpp ne daa yeyoo ku ko màggal ak a wormaal di doxale ak nit ñi ni mu bëggee nu doxale kook moom li mu bañ ku ko ko def mu di ko wattandikoo defee mu yërëm mboolem mbindeef yi te di leen xool bëtub cofeel ak ñeewante te yàlla rek a tax di leen nëbbal seeni ayib ni nga bañee ñu xam sa yos di muñ seeni lor te di leen jéggal di leen dimbale ca la nga leen tane te di leen laabiire nee na murit bi wërta barim po ak ay caaxaan ak wax ju amul njariñ ndax yii yépp day rey xol di ko fàtteloo yàlla te àdduna gàtt na lool rawatina diggante bi nit ki juddoo ak fi muy faatoo ñi ëpp ci bokk yi bokk yi murid yi am po ak i caaxaan rek lañuy nekk moo tax mu ne waru fi am temps bu muy yàqate ci am po ak i caaxaan nee na bokk na ci jikkoy murid bi di wax dëgg fu mu toll di moytu fen te du wor di wekk ay waajuram wormaal leen te déggal leen di rafetal digganteem ak ñi ko mag ci ay jegeñaaleem ak ñu dul ñoom mu sopp leen tey nooyal seeni wax ak ñoom digal nañu moom tamit sëriñ bi ñuy war wormal boroom xam-xam yi ak gaa yu baax yépp di leen liggéeyal te yàlla rekk tax di sàkku seenu ñaan ak seen barke moo tax mu ne wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla xiin watlub duaahum wa minhum abada kun daa tabarrukin fa tasdaada alhuda fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fi ma qad nuqil mu ne ndax màggal ku xam yàlla te topp ko moom màggal yàlla ñoo yem suñu jamono jii nag boo dee siyaare ji beneen sëriñ bu dul sa bos ñu ne la ni mu seytaanee buntu kër bu ne da ko fa gis moo ne de sëriñ Tuubaa moo nu ko digal kon ñoom ñiy wax lii ñooy ay seytaane mënoo wax ne muridullahi nga ba noppi di noonoog jullit bi ngir ñàkk bokk ak moom am ngir di noonoog jullit bi ngir ñàkk bokk ak moom tariqa di noonoog sa mbokkum taalibe ngir ñàkk bokk ak moom ab sëriñ fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa sëriñ bi moon wax ne bu leen noonoo mukk koo xam ne gis ngeen ko gémmiñam di génne baatub laa ilaha illa al cheikh abdul wahab al shaaraani nee na bokk na ci jikkoy murit bi mu sopp lool mbokkum taalibeem ndax mbokkam la ci meen fa yàlla ci loxoy sëriñ bi mu ne koo xam ne nag bañ na mbokkum taalibeem deeful yéegal sa jenn jëf ci asamaan bu fekkee nga góor góorgóorlu ci jaamu yàlla ba sori ci yàlla yàlla mën na cee wàccee say daraja ba mel ne mosoo def dara naax saayal sa jëf yëpp Cheikh Abdul Wahab Ash-Sha'rani moo ko wax moom ci boppam wax na ne toog ci jataay di wax sikki sa mbokkum taalibe wala ak mànkiteem day waral yàlla jéppi la sa bokki taalibe jéppi la boo dee wax lu rafet nag ci ñoom day waral yàlla gërëm la nit ñi gërëm la ak yewute nag mooy ngay bañ a tabbi ci loolu yàlla di jéppee gannaaw loolu noo ngi leen di fàttali ne xàq yi dox diggante sëriñ akub taalibe lu diis la taalibe bi dafa jaf dafa jox boppam sëriñ bi ngir sàkku ngërëmal yàlla xàqi sëriñ bi ci taalibe bi kon mooy mu wekkoo wormaal ko déggal ko bàyyee ko boppam mel népp néew ci loxoy ki koy sang ni ko sëriñ Tuubaa waxe xàqi taalibe bi ci sëriñ bi mooy mu xamal ko yàlla xamal ko ay ndigalam ak i tereem teg ko ci siraatal mustaqim di ko ci teete ba ak ruuxam set wecc ba melaat na mu meloon ca azal ba mu wàccegut àdduna taalibe bi bu lankee bañ a jaar fa ko sëriñ bi bëgg a jaarale sëriñ bi wàcc na sëriñ bi tamit bu matalewut xàq taalibe bi dina ko layoog moom ëllëg te kon taalibe bi yay muy kon responsabilité bu rëy lool bu sëriñ su baree bari ci suñu jamono ji umbule ndax li war sëriñ bi ci taalibe bi diis na diis goo xam ne ku sañoon bu kenn ñëwee di la jox boppam danga nga naan ko li ma war sama ak sama borom rek doy na ma sëkk ci ñàkk xam ne ma koy lijjantee kon mbéye bu nga seeti kaneen waaye mel na ne la sëriñ Touba doon wax ci melokaanu yenn sëriñ yi ci masaalikul naan ku ca dem da ko ci fekk tey jii la raw nee na bëgg àdduna diwul mbooloo ak alal bëgg ku leen wormaal ak di leen màggal wax na ne ñi ëpp ci sëriñ jamono sunu jamono ji dañuy wooteeg wilaaya di jéem a jommal nit ñi ci ay xissa yu bari te ràññewuñ farata ak sunna di ñoddi nit ñi jëme leen ci fitna te loolu ku xool ci sunu jamono ji da ngeen ko gis ndax ñiy woote bari na lool te umpale lool li war seen diggante ak seen borom mu ne boo taggee beneen sëriñ ci wetam xolam naqari mu gis boppam ngir ki ñaan lépp ngir bëgg daraja mu ne boo waxoon lu ñaaw ci kaw sëriñ boo xam ne ñépp a xamul mbaaxam da cay bég ngir jàpp ne moom rekk lañu war di tudd ak di tagg boo ko fi bàyyee jébbulu ci kaneen ngir sàkku fa ku la teg ci siraatal mustaqim sëriñ Tuubaa nee na day jàpp ne da nga koo xeeb di la tëkkoo ko ñaanal alkande sëriñ Tuubaa ne sëriñ bii nag bu fekkoon mbiri taalibe bi jag rekk ko yitteel kon fu mu mën a jage rekk dina ko neex muy fi moom wala ci beneen sëriñ nee na sëriñ boo gis mu mel nii nee ko fi ñukk te seeti beneen bu fekkee yàlla rekk moo la yitteel nee na koo gis ci sëriñu jamono ji muy kawe kawelu ci kaw jaam ñi jàpp ne moo leen gën wàcc ko bu ko jox sa bopp fa inna fadlallahi laysa muxtasar yu'tihi man yashaa'uhu min al bashar mu ne ndax ngëneelal sunu borom sunu borom subhanahu wa taala yaatu na lool te ku ko neex mu sédd ko ci ba mu fees jàll kon bu kenn jàpp ne moom rekk ko jagoo sunu borom ay mbiram lu nëbbu la lu ko neex def te lu nee ngi ci jaamam sëriñ bi ne kon kayfa yasuudu wa huwa fi l azmaani yuhibbu salba ni'matal ixwa ni'matil ixwaani sëriñ boobu nan lay doone sangu kenn te moom kenn ci xéewali sunu borom yi sëriñ Tuubaa nee na da ngay gis lenn ci sëriñ yi jamono ji ñuy nuru nuru lu gaa yu baax ya nga xam ne dara yitteelu leen lu dul ngërëmal yàlla foo leen fekk du dañuy tudd yàlla lu bari ca seenu làmmiñ waaye seen xol ya ñoo gën a taq ci xol yi dañuy wane ne dañoo dëdd àdduna ak alali àdduna te fekk yooyu rekk leen yitteel sëriñ Tuubaa nee na da nga gis lenn ci sëriñ jamono ji ngir nuru nuru lu ku ragal yàlla te maandu tax duñu xool jigéen te bu dul woon bëti nit ñi ñu doxaleek moom nu yàlla gërëmut nee na danga gis lenn ci sëriñi jamono ji seen ñaawu dégg-dégg ak seen ñàkku xam-xam war na leen ba tax na ñuy woote àgg ca yàlla ba jaamootuñu yàlla suñ borom subhaanahu wa taala moo wax ne waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin sëriñ Tuubaa nee na wala takun multafitan di kulli man raaytuhu yushbihu cheikhan fi zaman nee na képp koo gis muy nuru nur la ab sëriñ ko bu ko geestu ba di ko topp sax nee na bul def loo seen mu kutumbalu rek nga defe ne aw biskit la wala loo seen muy leer rek nga jàpp ne aw weer la nee na bariwaa na nga gis ci sëriñ yi jamono ji ku ñu yëkkati ak a màggal mu siiw lool mel ne ku yàlla dénk jamono te moo golo ñooyam fa yàlla nee na waaye bariwaa na koy doyadal ay biram di ko xeeb fekk ku tedd la fa suñu borom tabaraka wa taala nee na bul xeet nit ki ngir ay yéreem yu xottiku te tilim ndax bariwaa na ku mel nii te fees dell i leer ak sekkare suñ borom subhanahu wa taala lii lépp nag bokk ba ko sëriñ Tuubaa di wax daa na ne taya taxoon kon bokki taalibe nanu delloo si xel yi jaamu yàlla bañ koo booleeg dara tëgg ko ci ndigali sëriñ Tuubaa di moytu ay tereem di jéem a jaar fi mu nuy jaarale suñ kemt lay kàttan di bañ a topp suñ bakkan ci di wutu déggin ci waxi sëriñ bi déggiin woo xam ne seytaane rek kañ ci wommat jëme di bañ a doyloo yenn xissa yu bari yi te dara dëppoo ci ak alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam te lu dul yii sëriñ Tuubaa waxu ci dara sëriñ bi li mat a digle wax nanu ko li mat a tere won nanu ko kon képp ku ñuy woo ci lu wuuteeg ndigalal sëriñ bi nan ko won gannaaw nanu wekk suñuy kilifa te war warmal leen ki noonu mbooleem kilifay diine ji nanu soppante wóolante joxante cër warmaalante bàyyi xiiroo bi ak ŋaayo bi bañ a xeebal kenn ab sëriñam gàtt xam-xam ak ñàkkum xel mën naa waral nga jàpp ne sa waay rek ay waaja xamoo lu sa borom dëxëñ ci sa moroomum jàmm te umpule may suñ borom yi yu yaatu yi ak ab sañsañam sañam loolu dong lay firi nanu àndandoo doon benn kenn ku ne bëggal moroomam li mu bëggal boppam nu yéeneente jàmm te xam ne sëriñ boo man di am lu mu foor foor boo yéenewut nit ñi jàmm doo am jàmm tey doo ko am ëllëg nanu xam ne ñoo bokkum noonu te dara yitteelu ko lu dul suñu xàjjali ko bu sañoon toppante du am kilifteef du am déglu ndigal ba di ko jëfee du am noon bi doon xeex ngir lislaam bañ a taxaw moo fi nekk ba tey te tey la ëpp doole tey la ay jumtukaayam gën a takk te ni muy xeexe sew lool ba day mel ne ku la yéene jàmm kon nanu boole suñu bopp te bañ a xajal seytaane suñu diggante bokk lu ñuy bëgg te di ko bëgg ba faw bokk lu ñuy bañ te di ko bañ ba faw yan na nu yàlla defal ndimbalam ak yërmande wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu